li waral sin dajab tey bi mooy kenn ci ñun sin mbokk ci yàlla muy sëñ xaadim mi nga xam ne dañ ko téye e, ci mbir moo xam ne yaakaar nañ ne képp ku jaar ci jaara ak képp koo xam ne daara tàggat na la xam nga ne mbir muñ ko téye mbir la moo xam ne ku ne jaar nga ci bi mu agsee nag xibaar bi ñëw ci ñun mu nekk naqar ci suñu xol yi lool lool lool lool ndax niti am na beneen wàccuwaay biñ ko war a wàccee lu dul fopp ko dugal dugal ci kaso surtout nag ci digganteem ak ndongoom dégg nañ léegi sëriñ bi Cheikh Ahmadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ndax ndongo bi ki la jàngal alxuraan ak lum la mën a def gannaaw boo fa jógee moom ngay gën a bëgg sax ci sa ndey ak sa baay ndax lim def ci yow la nit nag su fekkee ne dafa def ci yow loo xam ne kenn defut ko ci yow mënoo ko noonu mukk loo lum la mën a def itam mënoo koo fay kon su ko defee loolu nga xam ne mooy diggante ndongo bi. ak sëriñ daaraam kenn xaju ci léegi nag ah ñuy daalale message état pour mu jël matuwaay yi nga xam ne moom la war a jël jëmale ko ci ki nga xam ne ñoo xam ne ñoom ñoo teye kii di xaadim ñu bëgg mu libéré ko a ah, ñi am nag yaakaar bu baax ci ki nga xam ne mooy naayibul xalifa Cheikh Ahmadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ci ay kàddum ne dinañ am yaakaar ne ah danañ ko libéré xanaa ci ni gën a gaawee kon su ko defee daara yi nattu yi leen di dal dafa fekk ne ki ko jiitu woon mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ndax abu jahlin taxaw na ci màkk na hadal kalaam laa yusmau fil makka bàyyi ñes bu ko nettulaa mi na abu jahlin moo mën a nar kaw lax sax ñu ngi fee tudd alquran ndax loolu nag toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dégg nañ ci wax Cheikh Amadou Mahi ñoo topp alquran ne mboolem arab yi dégg nga sànq mun am na ñoo xam ne sax seen télévision yi ak seen rajo yi aaye nañ ci jàng alxuraan di dagg ay alxuraan yoo xam ne duñ bëgg sax nga jaalale ko fa kon su ko defee yooyu yëpp ci xeet yi xeex alxuraan la waaye nag alxuraan li ci bàyyi wax rek doy na yàlla ba yàlla ko waxal boppam moom mooy ki wàcce alxuraan te moom mooy ki nga xam ne moo koy sàmmal boppam waaye président Macky Sall mi nga xam ne ah sin président la te yàlla booy nañu ak moom ndax li nga xam ne mooy majorité bi mu am assemblée nationale daara yi nekk ci Madina liggéey nañ ci cër bu law taxawaay nañ taxawaay boo xam ne ak ñi nga xam ne ñoo responsabilité daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dëgg-dëgg yàlla taxawaay boobu nga xam ne am nañ ko ci président ba lépp lu président nekk ñu nekk ci ak moom ñu ngi koy ñaanal ci barke ñooñu ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ moo moo moo addu sànq mu fexe wax ñi nga xam ne ñoom ñoo téye xaadim ñi delloo ko mu dellu ci palaasam. Música